Amet ak ñuy dóore ngay dégg mais Amet xam nga coalition tamit dafa am nu ñu ko organiser. oui euh, seen coalition bu nit ñi bu bu ñu le choix de Barthélémy Diaz. pour la présidence de l' assemblée nationale. oui c' était pas un choix fortuit. gars yi jàppoon nañu ne. il était le mieux placé. ma wax la benn pour xaaral xaaral xaaral ñan ñooy gars yi il était le mieux placé. non ñan ñooy gars yi. may ma rek il était may ma il était le mieux placé. dama ne la bu ab bu ñu defee communiqué. tànn bu ñu defee communiqué tànn. merci Barthélémy Dias. pourquoi doo conformé wu. ci discipline euh, nu coalition bi merci beaucoup. benn communiqué bi kañ la génn. communiqué bi instant presque bi ñuy xeex la fa dugg si. c'était pour vous départager. waaw non déglu ma rek. communiqué bi ban heure la fa ñëw chaque instant gars yi ne waaye coow li bëri na mais ñii même buñ ne kaay leen vote ñun kan mooy suñu candidat ma wax la tey loo mosul xam. Hmm. ma wax la ko tey fii am na ñoo xam ne tranché wuñu am na ñoo xam ne ci yeewi comme que samay kilifa lañ nag moo tax bëgguma tudd seen tur mais tranché wuñu dañoo neutre dañoo neutre tranché wuñu neutralité bi noo ko jàngatee. xam dëgg gi daw ko amul leneen Ousmane Sonko du violer loi mais nu muy def Aïda Mbodj du violer loi. ñan ñoo violer loi bi. nan lay def. yow kay mais non il faut savoir lire entre les lignes. waaw Ousmane Sonko ak Aïda Mbodj dañoo na dama ne dama ne am na ñoo xam ni ba fii may wax ak yow. seen mbokk yi saaga nañ ma façon saaga bu ne te ñoom tranché wuñu ci candidat candidature président assemblée nationale xanaa déggoo li ma la wax ci Barth léegi nii ma réitéré ko répété ko dama ne ña nekk assemblée ba mu daj député ak secrétaire élu xaw ma ak kii ñii ñëw ñi gardien yaak ñépp moo bëgg a nekk sama xarit. vote bi gis nga bi mu amee du lundi mercredi ba lañ ko àtte ma riir wutali këram mercredi maa ngi woon këram man kër man ñu teg ci presque trois mois ñu dugal ma ci kaso bi Bartma nga sama kër mais heure défendre principe bu jotee man dama koy défendre. doomu aadama mënuma ci génn. mais mais mais mais c'est ça mais coalition dafa am discipline. waaye no quand quand discipline bi ñu la choisir à ma rek bi ñu la choisir tànn keneen ku dul man. ma ne waaw mais gars yi dañ ko topp. no dama ne mais bu ñu choisir. Barthélémy pour la présidence de l'Assemblée nationale. Ahmed Aïdara nag waroon nga nangu. non dama ne dama ne dama ne. waaw ah. déglu ma expliquer rek dama ne. charte moo ñu tënk. muy kayit Ousmane Sonko toog ñëpp seetaan ko mu ne ko génneel ndem si yàlla Pala Samb te nga dugal diw suñu liste bi bu ko yàq doo leader Khalifa Sall wax ci Maïmouna Bousso lan moo expliquer sa position ñoom seriñ Mansour Sy Djamil yépp presque gédd parce que ñooñu ay leader lañ bul xool ne kii am na expérience xale la mu ngi doog a nekk député non kayit yi la c'est écrit noir sur blanc comme l'article 27 de la constitution bu ñu fi xool ne Macky mii il faut ñu may ko ñaari at expérience la am yëpp suñu yoon nekku ci pare na point finale demal ba pare may mun a nag leader yi. man biñ ne dañuy dem député saa yi ñëpp dañoo dem tafu ci liste liste liste nationale bi bëgg càppaatulu yóbbaale leen ñu bari sama baat ni poto. <laughs> man laaj leen réunion conférence des leaders damay wax sama xalaat nii pare dem. ñëpp ci liste nationale ba lañ dem tafu waaye man ba ma demee départemental kan laa fa fekk Racine Talla Khafour Touré Lat Diop Néné Tall Beydi Ba Racine Ba Aïda Sow Diawara Aliou Sall ak kan PCA yi ñoom ñëpp contre man ñun suñ député yi fa nekkoon noonu nit ñi miinuñ la à part Waré Sarr man ma ne leen bisimilah jàmmaarloog ñoom rawee leen vingt trois mille voix quadruplé score bi ma amoon ci local yi six mille laa leen rawee local yi député yi ñëw vingt trois mille voix ma nekk député may conférence des leaders li yàlla dogal mooy maag ko dong Babacar Diop dem na ñoo fay maire conférence des leaders lii la yàlla dogal <laughs> may déglu ma conférence des leaders man dong maa fay député may lii la yàlla dogal dama ne dégluwaat ma dama ne conférence des leaders yeewee askan wi man ak Ousmane Sonko dong la yàlla def. préfet ak ñu nekk maire. conférence des leaders ba mu daj yàlla dogal na ne man dong maa fay député et le plus léegi loolu déglu déglu déglu déglu ma daane. conséquence politique la war a induire waaw léegi déglu ma daane. Hmm. conférence des ba mu daj man rek la yàlla dogal ma nekk député maire. léegi. déggoo ma de. lu mu war a induire comme conséquence. yaa ngi may bàyyi xel waaw maa ngi lay bàyyi xel. ville de Guédiawaye ba Guédiawaye amee ba tey pour la première fois ñu dégg député maire de la ville de Guédiawaye lii la yàlla dogal.